gars yi match bu rëy bi Edouard di def tey jii tas na Arabie Saoudite empêché ñoom Karim Benzema ñoom ñëpp la gëlëmal tey hé Edouard jamono ji ah waaw baax na salaamaaleykum amateur de foot ñu nañ leen ko ci nekk seen tur seen sant de ba ñuy wax ci Mory Diaw ba léegi Edouard a ngi def ay performance yu teg maanaam concurrence jar naa bàyyi cib réew <laughs> concurrence bu baax la. tey jii gars yi club boobee di Al Ittihad bu ñoom Karim Benzema doon football ak Al Ahli ah, bu ñoom Edouard Mendy ak ñoom Firmino Kessié ba ancien joueur Barça bi nga xam ne mooy jàppale ñoom Edouard Mendy dugal l'unique bi ci match boobe 1 bi à patal lañ leen may Kessié moom maanaam commandant la mooy jiital gars yi di leen jàppale di dugal ay bi yoo xam ne nii vraiment comme ni mu ko doon defee Barça rek ci classico yeeg ñoom seen bi yu am importance ci lay dugal mu ngi noonu Edouard Mendy nag gars yi tey def na clean def match bu rëy ay yoo xam ne nii permettre ko euh, kookee di Al Ahli mu gagné match boobee ba tey dañuy ñëw ci résultat match yi nga xam ne am na foofee ca Saudi Pro League Sadio Mané suñu international sénégalais tey jii ñoom nag mën naa ni génnee xel lañ leen def ñoom ñuy mën a deux buts à un ba temps bi di waaj a jeex ñu xulle ba égaliser jot am rouge. 92e xam nga 94e minute Sadio dafa dó génn ay à la 84e côté minute yooyu la génnee waaye bañ demee ba ci biir ci la kookee di Al Nassr mujjee encaissé. ñooñu égaliser léegi kon Al Nassr bi mooy jël pay Euh, ci kaw euh, club boobee di euh, Al Ittihad bi nga xam ne moo ñoom Karim Benzema ak ñoom seen mu ngi noonu Al Nassr mu ngi am 19 points mu ngi noonu waaye balaa ñoo jógee foofu dañuy indi résultat match ak kooki di Abkha ñoom dañoo nul deux buts partout kooki di Al moom nag Al Fateh moo ko dóor deux buts à un Al Taoun nag moo dóor trois buts à zéro kooki di Al Tayed Al Riyad nag moo dóor Al Sabab ak Al Riyad dañoo nul deux buts partout kooki di Demak dafa dóor kooki di Al Azam 4 buts à 1 mu ngi noonee mu doon match yoo xam ne nii mën naa ni neexoon na yëngu woon na foofee ca Saudi prolique League indil leen classement bi kii jël pay kii jël 2 ak 3 ak ñoom seen Al nag moom moo jël pay am 22 points. Al Hilal bu ñoom Kalidou Koulibaly jël am 20 points Al Nasr jël 19e jël 3e am 19 points kooku daal Etihad jël 4e am 19 points Al Ahli jël 5e euh, am 19 points mu ngi noonu 5 premiers yi moo nekk foofee ci Arabie Saoudite mooy leen xaar ci commentaire nan ngeen gisee képp koo xam ne abonné ko suñu chaîne YouTube dugal suñu vidéo TikTok nga bës logo YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé ko la te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien ñoo far kontaan na wallaay ndeysaan saa yi gerte la quoi ñoo far avec mon grand Diouf mais bëgg nañ ci waa mais Bamada lan nga wax Eh, wallaay ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan kese do continue comme ça inchallah ah après daal la Alhamdulillah الذين قالوا استوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على fi daal di leen yàlla def ay chinois. ngeen mokkal alxuraan. ndax mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment. loolu la leen bu baax a baax. yaatu macha allah. daal di leen yàlla def ay chinois. def leen ay Bye.